mais euh, Moustapha loolu aussi euh, c'est très normal ah parce que xam nga booy wax ci mbooloo moom ñaar rek a mën a am mooy ay signe euh, d'approbation wala d'improbation. nit ñi soit dañuy ànd ak yow wala ñu bañ a ànd ak yow. et aussi mais on peut leen ñu wax. waaw d'accord euh, falaa jëm on peut pas quand même. Mhm. Euh, chaque jour di wax benn mbir ba noppi di bëgg askan bi def la contraire xam nga fii ci plateau bi dañuy faral di naan dañu war a éviter d'être hypocrite. Mhm. ñu demander askan mu hypocrite parce que Moustapha mënoo bâtir sa euh, sa tour. sa lépp nga am ko ci askan bi ak di mbubboo askan bi ba noppi nga yegg fenn fi nga bëgg wax askan bi lan ngay woowee war askan bi xam nga tey jii bu nekkee da nga toog fii comme Pape ñu ni day défendre askan bi dafa nekk ak askan bi hmm. ma dem ba am benn responsabilité wala ma dem ba sama parti jógee ci point A dem ba ci point B wala point X wala Y mhm. alors léegi man Pape Makhtar boobu nga xamante ni dafa doon wax waxu askan bi ak yitte askan bi neen daf ciy dox mhm. mais bu wëlbatikoo dem di dugg ci yeneen mbir yoo xamante ni yu leerul la mais askan bi am na sañ-sañ quand même ni ko fii doog fi waxate parce que yow say mbir leerul xam nga tey jii sëñ Ibrahima yi mhm. wala wala wala Ndiaye kenn du ko reprocher le fait que mu ànd ak le président Macky Sall sañ-sañam la mooy que ngay ñëw di jouer ay jeux yoo xamante ni kenn mënu ko comprendre te loolu je crois que ni responsabilité ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir yooyu la. te hmm. aussi loolu lu tax man ma jàpp ni sax dam ko war dañ ko war di rafetlu parce que en réalité. rafetlu la li li xew tey. effectivement pour man sama gis-gis. en réalité. Hmm. Euh, dafa am loo xamante ni ay signaux la yu important yu ñu war a jox ñi nga xamante ni ñooy politique. wax leen ne ah, sañ ñu def leen neex. merci beaucoup mënuñu ni dañuy nekk di dund éternel recommencement. que yoon bi ñëpp xam nañ ko dangay ngay commencer nekk ci benn benn benn benn benn ascension fulgurante ñii naan kii nitu askan bi la nitu askan bi la nga xëy suba. Hmm. wëlbatiku cub drapeau taxaw di naan léegi yow da ngay commencer di négocier di toog di naan da ngay xas askan bi wala da leen jox ay leçons de morale. gis nañ ko fi mun ngay jël ay exemple exemple exemple même chose la ascension fulgurante mais après loo siy gis chute létale parce que tout hmm. gis mooy que seen discours dafa changer mais askan bi aussi mënoo leen demander ñu hypocrite mënoo leen ni. ok faites comme comme si de rien taxaw leen fii ngeen déglu ko ñoom bu ñuy ñëw. Hmm. te loolu sax moom mooy démocratie. mooy signe d'improbation bi ak d'approbation bi nga xamante wax naa ko léegi démocratie mooy kii ànd na ak moom. ok hmm. dama koy dàccu kii ànduma ak moom dama koy xamal ni ànduma ak moom maintenant moom moo ciy tiré li nga xamante ni moom mooy euh, conséquences yi te aussi bu ñu jëlee par exemple kaw xalifa xalifa xalifa Ababacar Sall. xalifa hmm. def nañ fi euh, def nañ fi def nañ fi manifestation fii ci euh, ASEPEX mu mhm. wax euh, tere ASEPEX ñoom waa yeewi askan mu wax mu wax ba pare dañ ko dañ ko adulé dañ ko tàccu yëkkati loxo mhm. ci diggante bi lan moo xew ba ñi nga xamante ni tey jii ñoom ñoo la doon tàccu ñi la doon ñu la doon ñu encouragé ñooñ bu ñu walbatikoo di la di la di la di la hué di la yuux mhm. mais yow bul jàpp ni ñooñ dañoo xamante bul jàpp ni ñooñ dañoo dof yow xoolaatal sa bopp parce que Pape Makhtar bi nga xamante ni ñëw na tey jii tàccu la ni la fi nga jàpp foofu la Pape Makhtar amul benn problème ak yow parce que bu amoon problème ak yow lim si njëkk def du ko def maintenant bu nekkee yow mi nga xamante ni yow yaa nekk ci benn inconstance yow yaay taxaw tey jii nga ni nii suba nga ni nee nekkoo ci opposition nekkoo ci pouvoir mais aussi bul demander à que askan wi bàyyi la ci mbiru. mbiru tappale yooyu est ce que là trop dans dans l' émotion. Mm-hmm. li li ma bëgg a wax mooy euh, Aminata Touré ancienne premier ministre. diriger les listes de Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi ñu génn lu nekk yàq na ko waaye yeewi askan wi ak seen i leader na Touré boobu jugee benn Bokk Yaakaar ñëw taxaw ne wéy damay xeex troisième mandat fu mu génn léegi ñu tàcc ko xalifa Sall moom man déggu ma wax peut-être Barthélémy Diaz moom mu exprimer une opinion boo xam ne xëy na ñenn ñi bëgguñu koo dégg ñu ne léegi Barthélémy ak Khalifa Sall ñoom ñoo fi yées est-ce que là on n'est pas dans l'émotion ci suñu ay euh, enfin politique politiques wala boog seeni militants ci seen ay réaction par rapport ak li nga xam ne mooy xew ci réew mi. xam nga bu nekkoon ci ay émotivité kii yu ni mel. je mhm. pense que ni réaction yooyu du am et du nekkul aussi réaction yoo xamante ni euh, yu infantile la c'est-à-dire c'est très bien réfléchi euh, tey bu ñu jëlee kaw Mimi Touré. Mhm. dafa jóge ci ay avantages dem si ay jafe-jafe. te mën nañu ni bu accepte woon tey jii toog nekk géwalu Macky Sall di wër di naan troisième candidature amaana problème yi am du ko am. nu ko ñeneen ñi accepté bu ko defoon peut-être institution yi mu doon jiite peut-être dina ko jiite ba tey. boo jëlee Moussa Diop bu waxul woon ni Macky Sall warul def troisième candidature peut-être mi ngi toog fi mu toogoon ba tey. te rien ne l'obligé mu def loolu. parce que da ko wax parce que yaakaar naan daf koo gëm. Mm-hmm. donc tey ñooñu bu ñu jugee ci kujje gi bien que man am naa ay réserve si ñooñu. yàgg naa ko wax naa ko répété naa ko bu ñu jugee ci li nga xamante ne mooy pouvoir bi dem ci kujje gi ni au moins am nañ benn mbir boo xamante ni ñëpp si war a mm-hmm. sañ-sañ quand ni la lii de ànd nañ seeg yow mais ça ne pas dire que dañ lay jox confiance ça ne veut pas dire que boo demee élection dañ dañ dañuy voté ak yow dañ dañuy dañuy dañuy dañuy voté pour yow hmm. mais li nga xamante ni ànd nañ si ak yow mooy signe d'approbation boo ñëwee taxaw dañ leen naan bravo li nga wax nii ànd nañ si parce que <coughs> askan bi foofu la toll maintenant loolu au cas par cas c'est pas parce que tey jii dañ la tàcc si benn manifestation que tout simplement boo demee ci élection dañuy jël seen ay vote ñu defal la ko mu nekk benn benn benn benn mbir boo xamante ni kon d'accord nga ak ak kilifa dañu am léegi askan woo xam ne dootuñu def ni ñu defaloon Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade peut-être même Macky Sall maanaam on est d'accord avec toi loo def baax na léegi on dañ lay jox confiance ba di la surveiller. Moustapha da ngay génn ci mbedd waxuma la euh, di la surveiller de dañuy wax ak yow sax di la gësam di la naan carrément gis ngeen fi ngeen teg seen tànk bon si jógee <laughs> mais Walfadjri na changé ligne éditoriale. Mhm. xam nga vendredi bi passé laa toog fii di leen wax ni. <laughs> Barthélémy Diaz dafa am lu taxoon ñu fal ko mooy Barthélémy Diaz rebelle bu ni woon du toog ak Macky Sall. te il a intérêt à pas changer de veste. Mm-hmm. te ba mu ko changé gis nga li ci topp. ñi la doon adulé ngay wëlbatiku di naan da nga leen di da ngay da ngay opposante ak ñoom di leen ji ay saakar yeneen ak yeneen donc je crois que ni vraiment gis nga li ñu war a wax mooy problème mu posture politique yi. mais pas askan wi parce que